may revenir bon effectivement euh, sur euh, vocation internationale ou image internationale Sénégal mais kan moo ko yàq à part les médias étrangers yi nga xam ne ñooy dem di sosal Sénégal di wax loo xam ni amul di wax naa réew waa ngi tàkk nous on a reçu avant-hier une délégation de la CEDEAO les parlementaires ñoom bi ñu ñëwee dañu ñu may yéen ñun li ñu gis ci journaux yi normalement les journaux occidentaux et les journaux du Moyen-Orient. yi nga xam ne dañuy jël benn fait des fois même dañuy jël ay ay images yoo xam ni c'est des images du Burkina euh, affecté ko Sénégal. ok juste pour renforcer l'idée que ni Sénégal yi ngi tàkk xam nga loolu euh, c'est c'est inadmissible j'en profite nag pour euh, vraiment remercier la presse sénégalaise. Hmm. parce que loolu moo tax ma doon wax sànq xam nga la liberté de la presse c'est quelque chose de fondamental. c'est très très important. Hmm. donc sunu journalistes yi dañ leen di encourager ñu ñaax leen parce que ñoom aussi. c'est les premiers défenseurs mmh. effectivement de l'État. Donc ils ont un rôle important à jouer, c'est pour ça qu'aussi on doit les protéger. Voilà. Ils doivent pouvoir faire correctement leur travail, c'est important. Mhm. Euh, et le débat critique bu nga xam ne journaux yi ñu koy porté c' important c' est utile au pays ça nous permet de progresser et de se poser les questions pour que ku nekk mën a comprendre fi nga nekk. Mhm. loolu loo xam ne am solo la. Mhm.